ci nguuru président Macky Sall nag daanaka si diiru fukki weer amal nañu ñaari état d'urgence lépp nag lii di mbas mi di Covid 19 moom moo ko waral. <coughs> merci Amadou dañuy tàmbaleeg euh, euh, merci euh, maître Moussa Sarr maître yoon bi nga xam ni moom la président Macky Sall jaar pour mën a ñu voter projet de loi bi nga xam ni permettre na ko léegi mu élargir maanaam champ bi léegi yamatul rek comme li ñuy wax ni si si si état d'urgence la maanaam catastrophe naturelle dugg na si. ak yoon bi mu jaar ba nga xam ni bu 12 jours yi rombee léegi bu ko neexee moom fa mu toog sans mu jaar assemblée mu yokk état d'urgence mu jël ko wala état de siège loolu noo ko jàngatee maître Sarr. Mm, waaw jërëjëf Babacar tout d'abord ci laa waroon doore maa ngi remercier ñi ma bokkal plateau bi monsieur Mansour Ndiaye expert en microfinance professeur Fatou Sow Sarr ak l'honorable madame Hélène Tine donc suivre nañ actualité bi. Mhm. concernant le vote. de la loi portant modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège euh, vote boobu nag jur na fi coow lu bari. Mm. te coow li aussi mën nañ ko comprendre lu tax parce que boo jëlee la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège bi nga xam ne moom lañ modifié dañ ko jël en application de l'article de la constitution de 1963 ñu ne ci article 58 boobu ci jamono état d'urgence état de siège 12 jours la bu ñu ko buggee renouveler assemblée moo ko renouveler ba pare renvoyé ne dañuy jël benn loi pour la mise en œuvre donc pour que ñu jël loi bi dañ prévoir catégorie juridique boobu mooy état d'urgence ak état de siège ci constitution bi ba pare tey boo xoolee suñu constitution de 2001 article 58 boobu moo nekk léegi article 69 bu reprendre la même chose moo di ne état d'urgence état de siège 12 jours d'abord bu ñu ko buggee renouveler dañuy delluwaat au niveau de l'assemblée assemblée renouveler ko ensuite wane ne loi moo koy def. moo nekk constitution ba léegi. moo fi nekkaat ba léegi numéro yi moo changé. Hmm. parce que constitution bi article yi dañuy yokk. Hmm. je pense su ma juumul léegi ñu ngi ci 103 articles constitution bi ñu yor léegi donc muy wane lan. pour que nga dugal la gestion de catastrophes naturelles et sanitaire pour man il fallait que ñu prévoir ko ci constitution bi parce que constitution bi prévoir ko constitution bi lim prévoir mooy état d'urgence état de siège léegi nga dugal yokk ci titre 4 benn article 24 bu bees article 25 yokk ci gestion des catastrophes naturelles et sanitaires gestion boobu de catastrophes naturelles et sanitaires suñu constitution prévoir ko ñu appliquer même régime juridique que état de siège état d'urgence boo liiree article 24 bi ak 25 c'est le même régime juridique que état de siège donte nag l'article 24 dit l'autorité administrative compétente mooy kilifa yi ŋànk nguur gi am nañu sañ-sañu sans ñu jaar par état de siège état d'urgence prononcé état de gestion de catastrophe naturelle et sanitaire appliquer même régime bi mën a jël couvre-feu mën a limiter les déplacements pour assurer continuité de service public donc tur bee soppeeku mais c'est le même régime juridique donc pour man jàpp naa ne lu toll ni concentration des pouvoirs bu ñuy war a jox njiitu réew en remettant en cause mm-hmm. li nga xam ne sañ-sañu assemblée la suñ koy def dafa war a nekk loo xam ne constitution moo ko prévoir te gisuma ñu modifier constitution bi kon man loolu moo ci suma problème. man jàpp naa ne da ngay gis contradiction day non pour man dafay violer la wax ak lii projet constitution. parce que dañu créer benn catégorie juridique bu bees parce que constitution bi état d'urgence la waxoon état de siège ñu yokk ci benn troisième catégorie mooy gestion des catastrophes naturelles et sanitaires te constitution bi prévoir ko donc aujourd'hui on empêche à l'Assemblée nga xam ne moo fi toogal askan wi d'exercer un contrôle sur l'exécutif parce que moo taxoon dans l'état de siège et l'état d'urgence ñu prévoir ne boo ko jëlee 12 jours da ngay delluwaat ci assemblée ñi toogal askan wi ñu xool ndax jar na ñu yokkalaat la ko ou jaru ko mais boo jëlee sañ-sañu assemblée nga xam ne waru garam mooy contrôler l'exécutif nga ne léegi dootul contrôler exécutif def ko un mois dootoo delluwaat assemblée man jàpp naa ne c'est une forme de confiscation mooy dañu nangu sañ-sañu assemblée jox ko exécutif waxuma ne ci jamono tolof tolof bu mel noonu war ñu yokk dooley nguur d'accord nag mais même buñ ñu koy yokk nañ ko jaarale ci yoon mooy ñu modifier l'article 69 yokk ci catastrophe naturelle et sanitaire ba pare ginnaaw bu ñu ko yokkee nag ba pare aussi ñu mën a permettre aussi ñuy dellu assemblée parce que man d'accord ma parce que boo lire exposé des motifs. dañ la naan y a une lourdeur. le fait que. dafay exécutif bi di delluwaat assemblée. pour ñu renouveler ko dafa diis. non mais diisul lu jaadu la dañu nekk ci société démocratique bu ñu nekkee ci société démocratique mooy dafa am lu ñuy wax séparation des pouvoirs exécutif bi dafa am lu ko war législatif bi am lu ko war judiciaire bi am lu ko war. Mmh. léegi le fait que nga delluwaat ci ñi nga xam ne ñoo am sañ-sañu askanu réew mi pour laajaat leen. ndax ñu dolli waat la ou dolli wuñ loolu du diisaay loolu lu jaadu la ci démocratie parce que loolu bu amul ci démocratie leneen lay niru leneen lay niru donc c'est une atteinte pour man à la démocratie c'est une atteinte à l'état de droit kon loolu d'accordu ma ci man et jàpp naa ne aussi jarloon sax ñu yokk ci catastrophe naturel ak sanitaire hmm. parce que boo xoolee état d'urgence bi déjà covid bi bu njëkk bi jëloon nañ état d'urgence boo xoolee définition état d'urgence hmm. ci article 2 de la lois de 1969 ñu ngi ciy wax un événement de nature à avoir un caractère de calamité publique mais pandémie calamité la catastrophe calamité la donc bu leen neexoon sax duñu ko yokkaat mais ba léegi man gêné ma parce que ci mbiru droit lépp loo xam ne dafay gën a leeral situation surtout loo xam ne dafa war a porter atteinte aux libertés des citoyens d'accord naa ñu leeral ko maintenant nag li ma d'accordul mooy ci li ma jàpp man mooy constitution bi dañ ko jalgati parce que 69 article 69 prévoirul lool kon li ñu waroon njëkk a def mooy d' abord modifier article 69 yokk ci catastrophe naturelle et sanitaire ba pare aussi d' accord ma ñu bàyyee exécutif muy def un mois renouveler ko boppam déedéet il ne faut pas qu'on confisque il ne faut pas qu'on confine la démocratie et l'état de droit dañu war a bàyyi assemblée mu jouer rôle am maître dafa am question bu may laaj foofu xam nga tey mooy douzième jour bi nga xam ni le président Macky Sall jëloon na état d'urgence ak couvre-feu léegi 12 jours bi normalement minuit lay jeex donc ça veut dire que comme voté nañ ko ba pare moom à partir de minuit dafa war a jëlaat beneen décision wala dañu war a xaar ba ba kii suba pour pour mën a jël beneen décision. non 12 jours yi en tout cas bu motee. bu matee minuit la war a mat. wala wala wala wala couvre bi bu jeexee 6 heures du matin la war a mat. bon pour man. loi jour 24 heures la. 24 donc ci li ma jàpp man. Uh-huh. minuit la war a jeex bu 12 jours yi jeexee. Uh-huh. beneen loi bi entré wul en vigueur. Uh-huh. ci li ma jàpp man dañu war a delluwaat assemblée. parce que loi bi tant que promulgué wuñ ko. Ah, ah bon donc voté nañ ko mais promulgué wuñ ko. non yëgagu ma ne promulgué nañ ko xaw ma ah. ndax promulgué nañ ko. donc on peut yëgagu ma mais buñ ko promulgué moom day entré en vigueur. Ah. njiitu réew mi am na sañ-sañu. jël ci loi bu bees bi ñu voté le 11 janvier mettre ko 30 jours mais xaw ma ndax. promulgué nañ ko loolu yëgaguma bu fekkee promulgué wu ñu mën nañu considérer que ni état d'urgence bi ñu nekk nii minuit lay jeex. 12 jour bu ko amee day jeex bu ko amee en tout cas 12 jours day jeex bu ñu promulgué wu loi bële. pour mu entrer en vigueur ci yoon dañu war a dellu assemblée mais bu ñu ko promulgué nag loi bële day dàqu. kon dañuy day appliquer sañ-sañam. mooy trente jours amaat possibilité renouveler ko sans mu jar assemblée. Mm. mais encore une fois jàpp naa ne loolu baaxul ci démocratie. d'accord naa nag ñu yokk doole yi nguur pour ñu gën a aar askan wi. gën a euh, gën a ñoŋal doxalinu réew mi mais terewul démocratie dañ ko war a bàyyi mu dox parce que assemblée ñetti rôle fondamental la mooy voter loi assurer contrôle de l'exécutif évaluer les politiques publiques donc contrôle de l'exécutif dafa am solo ci démocratie kooku waruñu ko xañ assemblée naan mbir mi dafa yéex loolu du loolu lay la non loo xam ne. dañoo bi sax c'est pas justifié. non non dara justifié ko parce que vote d'urgence euh, moom. non même muy même vote d'urgence lay nekk la plupart. mais dafa yéexul sax loo xam ne dañuy jël sañ-sañu askanu lëmm loo xam ne dafa am kuñ ko joxoon lépp ñu dajale ko ci loxo. kenn nit loolu dafa jaadu ñu dem assemblée waxtaane ko saytu ko diisoo ci daf ko jar. merci damay ñëw si euh, président Mansour Ndiaye président noo jàngatee également comme li mu wax la confiscation du wax sax confiscation peut-être des mais restriction des libertés yi nga xam ni am na ci sénégal yi pour mën a xeex ak Covid bi. Babacar jërëjëf maa ngi lay euh, remercier bu baax invitation bi. Mhm. tamit euh, sa ñaari chroniqueurs mhm. professeur dëgg yàlla seen taxawaay rafet na parce que ñuy wax noonu Afrique ñooy jóge fu nekk ñëw di taataan ci xam-xam. donc di ko rafet na bu baax di am toujours plaisir di ko déglu. di nuyu également man damay wax ne souvent savoir tombe dans la démocratie. xibaar yi nga xam ni baax la. Mhm. neex déglu tamit vraiment di ko jaajëfal ci xaaral juste s'il ñu ñu ñu ñu un petit problème après dañu ñëwaat si yow mais damay jàll si professeur Fatou Sarr professeur ba léegi si restriction des libertés yi est-ce que jar na ko pour mën a xeex ak Covid bi wala xalaat na ne dina am impact bi ñu soxla contre la maladie. non xam nga question bi. Euh, def naa sa problème ba tey am na de mu ngi mu ngi raisonné. mën naa continuer. waaw donc euh, man boo ma ko posé de cette manière dama bëgg d'abord dellu si bala ngay wax est restriction yi jar na ko walla jaru ko. Mhm. li mu wax mooy loi bi ñu jël. waaw loi bi ñu jël loi bi ñu jël euh, dañu ne dañu fa nar continuer di wax soo ba ngoon te problème yi du réglé wu parce que li ko indi mooy lan xëy na loi bi tuuti nit ñoo xam lu mu tekki. mooy ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci droit da ngay seet concept bi lan mooy calamité lan mooy catastrophe léegi dugg naa léegi ci internet bi xool dictionnaire bi nan la leen teq toit moom bu utiliser ñaari baat rek c'est que bëggul wax la ma waxul ça ne veut pas dire la même chose euh, mais fond bi mooy lan pour man seen texte yëpp lu leen tere ñu ngi si une civilisation de l'oralité tey xarale yu bees yi am na mais lu leen def ko ay audio dugal ko ci surtout gouvernement bi ku nekk xam li ñu bëgg wax lu mu doon parce que fii débat bi c'est un débat d'initié ay ñu xam droit la ñoo fay nekk naan ko warul woon def virgule bi fii ak waroon nañ jële loi bi ñu dellu si ko fal nañ expliquer nit ñi lu tax bu fekkee est-ce que li ñu naan catastrophe naturelle mooy jëyee joo xam ne ci ci àllam bi lu jóge wala ñu ni calamité est-ce que tiis bu wàcc si kaw as donc y a de multiples définitions mais ñu wax nit ñi ñu jëm seet borom xam-xam yi dégg wolof bu baax wala dégg làkk yi ñu wax ñu ko wax ju leer ñu xam naka lañ fa duggee mm-hmm. euh, li mu wax tamit ci ci nak la ñu fexee bu ñu weesoo rek affaire loi bi ñu fexe ba pouvoir yëpp dankaloo ci benn nit wax ji yëpp loolu la indi parce que dañ ni dañu mel ne dañu jël assemblée bi taxañ ko fale léegi président bi rek mooy mooy doxal mais balaa loolu sax système mu assemblée bi nu mu demee. Mhm. ak loi bi sax lan la ci dindi bu fekkee da nga am sa majorité bi ñuy wax mécanique li nga bëgg mu mu voté la ko ak loolu ban mooy différence bi. ça veut dire que ñu delluwaat suñu système politique ba tax assemblée boobu ñëpp mën fa taxaw parce que benn boo rek war a bañ dem parce que léegi ki raw gàddu mooy mooy jël yëpp. Mhm. te ñeneen ñi sax ñi wax dañ doon opposé bu ñu xasee ba dem ci assemblée ñëpp dem wuyu jiwaat ko. kon finalement ñun on a un système politique boo xam ne moo ñu posé problème nga xam ne tey euh, pour am ñoo xam ne euh, xalaat yu waroo mën di waxtaan ba mën a tënkoo ci dara daf xaw a jafe. man boo dellu see ci affaire liberté yi li nga wax dañu tënk liberté yi mhm. man sama position ci covid bi moo di ay poxu bakkan la ñuy wax gis nga bu ñu fi nekk di disserter est-ce que droit bi lii la was que virgule bi lii la bala nga naan naam ne fa nañ fexe ba sauver bakkanu nit ñi naka lañ koy sauver ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu parce que bu droit jotee nañ bàyyi juriste yi wax mais bu affaire santé jotee nañ bàyyi médecin yi wax ñoom ñoo ñaan ni tant que feebar bi nii lay demee pour ñu mën ko wàññi mooy dañu ñu ñu ñu wàññi ni muy circulé wu. léegi nag ñun dañuy choisir bu jógee nga ni euh, ah bu ñu teree nit ñi génn kon nit ñi du ñu am lu ñu suturloo lu ñu lekk muy luy dëgg tamit mais damay fi wax toujours ci plateau bi waa Mali yee nga xam ni jaadis dañu daanu seen kaw. tooguñu fa di lijjanti ndax am nañ lu ñu lekk wala lu ñu lekkul mais dañu jëm seet naka la ñuy faggandikoo euh, problème boobu. Mm-hmm. li des ba des moo di pour man dañu ko waxtaanewul parce que li am ba bu ñu waxtaanewoo ba xel yëpp gindi ko daa ñu war a mën de euh, ànd ci dara war nañ xool dëkk bi nag ñan ñoo ko ŋànk nit ñi toog waxtaane ko parce que bu dul loolu. est-ce que nekkul yàkkamti bi aussi moo tax amuñu temps waxtaane ko. non du euh, du question de la maladie quoi. non waaw loolu laa la bëgg wax dama ni au Euh, président jëloon na woo euh, yeneen naatangoom yëpp ñu toog waxtaan euh, système mécanisme boobu ñu ñu bàyyiwul mu continuer xëy na moo fi indi lii parce que léegi qu'on le veuille le débat il est parfois subjectif moo di ku nekk li ñuy wax en sociologie le lieu d'énonciation est important c'est-à-dire kii wax fa mu taxaw ak lu ko taxaw wax donc te li ma leen waxoon léegi ni système bi ñu am ñun dafa indi président nekk buur di buur di bumi parce que mooy modèle bi nga xam ne mooy la réalité te comme ñi nit ñi tamit ñoom noonu lañ ko gisee dañ ko gise comme buur moo tax ñu ne non non bu buñ ko joxee pouvoir yëpp kon dafay nekk fii di buur di bumbi euh, on a un problème euh, réel moo di suñu système politique naka lañ koy tëggewaat ba mu méngoo ak ñun li ñu doon ak suñu histoire ak suñu culture mais surtout ñi ko war a seq yëpp ñu seq ko mmh. euh, damay toujours suma waxee fii ñu may dellu waalo Euh, gis nga assemblée nationale waalo mooy sa bëgg bawar mais catégorie sociale ñi nga xam ne sax si ay moomeel lañu woon dañuy bokk ci assemblée nationale bi pour dire que fexe woon nañu ba chaque catégorie sociale représenté wu ci biir. mais bu fekkee assemblée bi benn ñoñ rek moo fa nekk. wala bu kenn gañee ñëpp ñëw foq fa fekk ju ko mu nekk benn ñoñ rek. ñi des ñi tuuti ñi nga xam ne ñu ngi si biti. mais ñoom comme amuñu benn doole ñoom li ñu mën moo di lépp lu ñu wax rek ñu ànd àndatuñ ci. ba nga tax léegi discernement dootul am ci biir. pour ñu xool fan la intérêt nit ñi nekk ak fan la intérêt nit ñi nekkul mais defe naa ni mbas mi dafa waroon nekk une occasion ñu mettre entre parenthèses les positions politiques des uns et des autres ñu jublu ci li nga xam ne mooy sauver bakkanu nit ñi parce que euh, wax wax yu waroo yi moo tax population bi gëmul ni mbas mi am na parce que ay ay kàngam ngay gis ñu toog sa kaw naan lii lii c'est pas urgent te 500 euh, personnes rek ñoo fi dee ñi fi dee barewul or benn bakkan bu dem rek dafa am importance pour man parce que je dis que les ressources humaines comme li ma doon wax ku mel ne Pierre Ndiaye boobu fi jóge ku mel ne Diouf moom fi jóge tey ak yeneen i moromam yi nga xam ne jóge nañ fi mais euh, li ñu investir si ñoom ba àgg si ay xam-xam yi ñu am yi bala ñu koy tabaxaat comme de temps ça va nous prendre donc mbas mi benn bakkan bu mu faat rek pour man ëpp na waxantumaak ñu naan euh, euh, cinq 500 personnes rek la fi am 500 buñ ko rekoo mais pour ñu mën ci génn moo di président dafa war a delluwaat woowaat ñëpp ñi nga xam ne war na ko toog ak ñoom mu toog ak ñoom bu ko defee ñu tënkandoo ko ñu xam li ñu fi tënk intérêt askan bi moo tax parce que ñoom ñëpp bu ñu bokkee ànd daañu xam ne njëriñu askan bi la mais tant que defuñu ko mais ñii dañuy xëcc fii ñale ñale xëcc la et puis deuxièmement nañ di fexe ba teg yi ñu def ñu koy wax ci olof ak ci yeneen làkk yi parce que léegi les audios sont là population pour mu mën a dugal gémmiñam mun wax moom tamit foog mu xam li muy wax lu mu doon parce que lii fi maître expliqué ko comprendre ñoom juriste rek ñoo ko comprendre naan article ba ñu jóge woon 1969 moom lañ jël changé ko mu ne jóge 50 jóge fa xam fan ñoom noonu la ñuy waxee. loolu mooy état li ko war mooy respecté. loolu nga xam ni moom lañ ko teg si ndogam. waaw loolu mooy loolu mooy système républicain. waaw mais nee naa la ñun toutes nos pratiques sont aux antipodes de la république. mën nañoo comprendre sénégalais bi comprendre lul quoi. waaw moom peut être xamul comme li nga wax ni ñu expliqué ko. non mais ki nga xam ne état moo war a ŋànk ni dëkk bi di doxee. yow même sa état a warul mën a sa état boobu. warul mën a jalgati euh, sa état bi si boppam ni muy doxee jotewul dara ak république loolu laa la bëgg wax moom laa jëm développé soo ba léegi même état bi si boppam ni muy doxee dafa waroo ak li république tekki parce que bu état bu fekkoon dafay doxee ak ni république tekki Euh, article boobu ma bindoon 1999 du ma ko bind parce que ay pratiques yoo xam ne c'était aux antipodes de la République lañ lañ defoon te ñan ñoo ko defoon ñoo xam ni dañu amee ay mandarga yi ñoom ñoo ŋànk réew mi. et vingt ans boobu léegi mat na <coughs> vingt euh, ñu bàyyi la nga nga continuer maa ngi doon maa ngi fëttali samay mais di wax également ci contexte bi ñu toll euh, man signe yi ma gis tey jii mu lëmbi réew mi mooy signe balaa la. parce que hmm. ñett mi ngi ci feeñ mooy benn. la peur nit ñi ragal la jur ci ñun deuxièmement alal mi ngi wàññeeku alal day yàqu et troisièmement mooy maanaam bakkan ni ngi ay bakkan a ngi rot ñett yooyu en général foo ko mës a gisee ci ay crise d'envergure yu mag danga naan loolu balaa la balaa nag kenn amulu ko àpp mën na betti parce que man ci suñu analyse yàgg naa ko wax ci ay plateau yu bëri crise yi fi daan am yëpp dafa naan am ay bërëb yi mu daan déparé xam nga catastrophe bu amee muy maanaam wàllu mbënd wala dara mën nga ko circonscrire. Euh, crise u 29 généralement ak 2008 ci ay marché financier mooy maanaam koom-koom bi la ñu nekk di manipuler ba mu am lu ñu ci fekk mu am yeneen conséquence ci dundin. mais crise bi nature am mooy ki nga xamante ni mënul toog mënul tëdd mënul tëju ci néeg kooku la jël plombé ko limité ay déplacement am. te kooku bu jógul maanaam koom-koom li ñuy wax c'est la loi de l'offre et de la demande mooy il faut que mu am benn professeur ba nga xam ne am na lu muy offrir il faut mu am benn honorable ba nga xam ne am na lu muy jël lu muy jënd bu ko defee ñaar yooyu ñoom ñooy rencontrer loolu nag maintenant bu amee benn bu ci am ay yonjax da ngay sentir crispation maanaam ci biir économie mais loolu pour insister vraiment ci effet surprise u crise bi mm-hmm. ba xamante bi mu amee sax xëy na état yi xamuñu woon sax nan la ñuy def ñu bëri ay ajustement nga gis wala ñu gis par exemple genre benchmarking la ñuy def gis tel dëkk def na lii réussir na ñu ni nañ ko def nangam na mais ay li yëwoon man dama jàpp ni xam nga euh, spiritualité yëpp li ñu enseigné mooy boo xamul na nga laaj ñi xamul. moo ñi xam voilà boo xamul da ngay laaj ñi xam même président de la république sax loolu du du du maanaam na sax ci moom le fait que moom mu fexe ba dajalee. comme ni ñuy wax doomi réew mi surtout nag ñi nga xam ni ñooy waa Kër Docteur ak tamit ñi nga xamante ni ay porteurs de voix lañu nga xamante ni ci échelonnement état maanaam boo ko jëlee ca kaw état centrale ba ci suuf am nañu ay rôle yu ñuy joué ñooñu ñu mën leen dajale ñu joxe seen xalaat man dama gëm ni ñun ñii ñëpp de. Mhm. ku ci toogoon keroog ak euh, président ci réunion boobu nga xamante ni ay ay ay ay maanaam rapportu euh, euh, waa kër docteur génn na fa boo moytulee sax di nga jël mesure bu ëpp état d'urgence mhm. rapport boobu bëgg nañ ko gis man yëg yëg boobu laa am parce que koo waxtaanal tamit ci docteur yi est-ce que rapport bi gis xam nga Babacar dafa dafa am lu ñuy tuddee ci réew ay point de défense mhm. bu fekkee ni Sénégal duñ ko attaqué woon militaire yi bés bu ne dañu leen war di jaawe jëfal waaye tey lu mel ne mbas bu attaqué santé nit ñi waa kër docteur li ñuy wax dafa am solo il faut ñu bàyyi leen xel te man ñi ma ci discuter en général li lay wax mooy on commence ay être, à être affaire bi nangam donc seen discours c'est un discours pesant et pressant bon boo nekkee nag njiitu réew euh, professeur doon na ko wax léegi xam nga suñu suñu régime tamit loo mën a wax président de la République mooy clé de voûte des institutions te am na la nga xam ne tamit bu amee ba président de la République sàggane ba loolu am ci réew ma moom la ñuy laaj ay compte tamit bon man lii loi bi def li mu ko jaarale assemblée bu ko jaarale woon assemblée mën naa ci am problème mais comme jaar na assemblée ba député wala parce que bu ñu fàttali tamit am na jamono mais assemblée xawoon na fa maanaam nekkoon na épicentre sax kii bi quoi. Euh, feebar di épidémie bi donc man damay présager que ni jamono sax mun na ñëw ba réunion sax dootuñu ko mën tenir te da ngay gis réew yu bëri. dajale réunion moom visioconférence am na fi. Euh, l'assemblée moom va continuer waaw mais mais ngant mën na am Babacar loolu buñ ko. buñ ko xam nga ñu fonctionner. non xoolal nit ñi bu ñu dajee. mais foofu quand même. waaw waaw mais nit ñi bu ñu dajee nekk nekk en masse. xoolal assemblée am na ñi nga xam ne dem nañu ba réduire nombre de personnes yi nga xam ne ñoo war daje. c'est vrai donc loolu buy am mais comme dañuy wax ni gérer mooy prévoir hmm. mais comme kay bu fekkee man jaarale naa ko assemblée. wala maa ngi ciy wut célérité pour que mesure yu may jël. Hmm, wala tamit pour combler benn vide juridique ba nga xam ne mi ngi fi woon. mais loolu tamit man dama jàpp ni moo tax daal pour man. non mais Mansour li maître wax pour nga tontu ci. je crois mais je veux li mu wax dafa am solo mooy que ni constitution bi nga xam ni moo tënk ñëpp même le président de la république. mu mu bàyyi constitution daal di teg beneen euh, loi boo xam ni peut dina ko may sañ-sañ boo xam ni.